Eh, Dieyna <laughs> euh, nga génne profil la ah, wàcc ci WhatsApp ak yooyu noonu depuis loolu gisuñu la foo nekkoon waaw fi ma nekkoon xanaa nekkaat rek ci studio yi di liggéey di préparé li nga xamante ne mooy album. di préparé yoo xamante ni mooy yu bees. àdduna des fois boo génnee lenn gars yi bëgg ko lool muy whatsapp yi gars yi bëggoon nañ ko lool wax dëgg yàlla ah foo tollu xale yi di ci challenge. man ci gërëm aussi réseaux bi liggéey bu ngeen ci na fu mu fa yeggal ñu ngi daal ci liggéey bi daal. <laughs> léegi ñu pare daanaka. sa sa morom yëpp génnee décembre fin d'année ñi ñi génnee ci Saint-Valentin bi yow ba tey nga ne da ci kanam ngay xaar. waaw parce que liggéey boo gis rek. Mhm. dafa laaj temps. Mhm. peut-être décembre bi génnee mais lañ doon liggéey ci studio bi moo pareegul woon moo tax dama ne nañ leen teg lépp. Mhm. bàyyi ba lépp passé ñu duggaat ko gën a xalaat. parce que woy dafa nekk loo xamante bu yettewul euh, déglewul. jox boo mës a génnee day dekk benn buzz soit mu nekk nit ñi di ko critiquer soit nit ñi apprécier wala day def buzz daal wër fépp léegi bii lu ñu mën a xaar loo xam ne Dieyna bu ko génneewaatee. comme yow da ngay topp actualité. whatsapp moo xewal nga whatsapp ba mu nekk après lu ñu mën a xaaraat loo xam ne di nga ko génne prochainement. waaw lu ñu mën a mais jéey naa yow amoo jëkkër di way ay jéeg ak yooyu noonu. mais jàppale ñi nga a mm-hmm. est-ce que doo ci ñamal tuuti ma xool lan la exclusivité rek. jeppir sa ànd du fay jeppir so de jeppir sa ànd du fay jeppir góobu Sénégal dañu tabe lool bari yërmande so de jeppir sa ànd du fay jeppir sama ànd du fay ey am naa sarxataan mooy yéen xolal am naa nakk jidda lay lay la laaw sama ànd du fay ma yow sama ndigg day rii sama fer dee xalam yow ay dasa yow sa bu <laughs> eh, ma dugal ci yooyu bu yow sa ànd <laughs> nar naa neex ah loolu naa neex léegi lu tax thème boobu nga bëgg ko nga bëgg ko way. waaw lu tax thème bi parce que ku xam góor Sénégal xam ne ñoo yor jigéen. ñun mhm. ñuy teel a xëy tey guddee wàcc ba tax na looloo tax ma gën a xalaat. jeeg biir sa ànd du fay. Mhm. mais kenn ñaanal yàlla sa ànd du fay. Mhm. saa yoo xëyee war nga dolli këriñ. Mhm. am sarxataan am naa ko jënd. da fu jóge yooyu daal ngay waay. moo tax ah, a say. Eh, jabaru géwal ku ko am texe nga. xam nga boo leen joxee ñu togg boo leen joxul ñu togg fóot ba mu set paase. bu guddi gi xaajee ñu takk téeméeri fer ak juróom ñaar ba ci seen ween yi. yéen lëmbalal lëmbalu vampire. <laughs> mat son bi daal wuy ma yaa ngi tax may wax te bëgguma wax. waaw nañ ko dënk rek. émission mhm. bi tuuti. xaar euh, campagne yi ñu dëgmal jàll son bi ñëw gunge leen. d' accord euh, sa depuis profil maa ngi la koy wax sànq gëj nañ la gis mais ci réseaux sociaux moom léegi moom danga nga jël réseaux sociaux yi Facebook dinañ ci gis ba di ngay publier di wax foo toll di nemmeeku say fans mais nag façon bi ngay defee snap yee ah di wane poitrine bi jëy naa sa atu yi ngay jàpp di wane ci réseaux sociaux yi di ñaawalaate pour lan loolu. gars yi bu ñu naan dañoo dama tooy man amee naa ku juddu taw foo jaar nga tooy. Mm-hmm. lenn dafa am dinaa wanewul dara ci moom lépp naturel la Dieye Fall tey su ma euh, takk sama soutien sol sama ropp euh, sama sama sama sama dër mën na feeñ. Mm-hmm. lii tey dama ko laa di sol mais du du tout koy am. ci stress bi may jox ay yére day xool li méngoog man ma sol ko photo yi ci Facebook bi Dieyna Ndiaye Instagram Dieyna Ndiaye euh, nu lépp la ngeen fay gis c'est hmm. lépp li ngeen fay gis c'est naturel dugal ma pour tapas wala pour pour kenn du ma bàyyi xel. mais est trop nag. sexiwul trop wala li ngay sol moom la moom nga yaakaar ñeneen ñi moom la ñuy sol comme li ngeen di wax. non li may sol man pour man Hmm. sol sa jéem sol sa korota xale yaa ngi koy sol. waaw waaw. yow mii tey des fois dëgg neex benn balaa je vous tuuru. <laughs> waaw ah, xaw a def benn benn guddi bu bu bu naaj. loolu daal gaa yëpp a ci koy sol. nee naa daal tendance lay dox. waaw. Hmm. mu sol moom gis naa ne ñëpp a koy sol.